président de la république def na ma chevalier de l'ordre national du du lion maa ngi koy gërëm di ko sant mais aussi dañu ne ci euh, passage bu nekk euh, ci euh, il faut que le ministère bokk na ci la direction général bokk na ci maa ngi leen di gërëm di la sant di gërëm le président de la république boo xam ne dafa ma gëm gëm ne la ma liggéeyal Sénégal la ma liggéeyal Dakar Dem Dikk la ma liggéeyal dikkeykat Dakar Dem Dikk li ma liggéeyal euh, voyageurs yi ci seen bopp parce que fu ma tallu maa ngi xeex pour que Dakar Dem Dikk baax bu seetee loolu yëpp mu ne élevé la à lord national du du du Lion dama koy gërëm di ko sant léegi nag travailleurs yi temps yi da ngeen maa dégg may xultu may xuloo ak DG parce que dama gis ne dañu taxaw ci benn place mais tey bu ñëwee ne ci li ngeen di revendiquer yëpp def naa yokk naa salaire yi juróom-benn junni ci salaire yi euh, agent de maîtrise yi nekkoon M2 yóbbu naa leen m donc te euh, clé yi nee ne dëgg na suñu clé en main mais moom aussi mu ngi ci euh, cité Moussa Diop lépp ci wàllu travailleurs yi lépp pour defal travailleurs yi la je crois koo jox salaire bu baax ah jox ko retraite pliant moo ci des te pliant bi ci biir kër la baaxe sa kër boo ko moomee am nga lépp am nga retraite bu baax donc looloo tax ñun fii kontaan nañu de toutes les façons dès le vendredi dinaa dugg ci bureau ñu commencé négocier ci yeneen problème yi mu def kon ndànk-ndànk ni mu defee nii réglé na ñaar yi gën a am solo mooy peyooru travailleurs yi léegi nag li mu koy gën a sant mooy mu yokk euh, kiyam ci euh, li ci des mooy revendication yi ci des te dinaa dem ci bureau am posé ko.